tey loo li ñu fi gëna a indi mooy euh, le plan social lu nga xamni ni daf koy jàppale askan bi ci période yu difficile yi ñu nekk ni muy période du euh, coronavirus dafa indi ay euh, ay dons yu tudd don en vivre en denrée alimentaire manam li nit ñi di jëfëndiko li famille yi di borom kër yi di gëna soxla pour mëna tok seen kër dundu xeex bi nga xam ne nii moom la ñuy xeex coronavirus euh, dafa mel ni dafa dégg moom avant euh, li fi gouvernement bi ak président de la république bi wax léegi nañ fa nañ fa xaw a gëstu muy làpp l'appui des couches vulnérables ndaxte nit ñi buñ leen waxee toog leen seen kër aussi borom kër buy toog këram dafa am lu mu fa war a toogee bu fekkee ne nag am na matale na yenn conditions yi yaakaar naa ne pour ko wax ko toogal sa kër day gën a yomb donc lii aussi pàcc bu am solo la ci xeex bu ñuy xeex propagation coronavirus maanaam borom kër yi nga xam ne nii ñoo ko yeyoo seen loxo jotul noonu seen ginnaaw ñu ñëw fekk leen seen biir jox leen ay kit alimentaire dimbale leen ci saytu yor njaboot gi yaakaar naa ne professeur comprendre na ne président de la république fii aussi vole bu am importance la bi bi volet médical bi jàllee mais volet appui social de des couches vulnérables aussi lu am solo la moo tax moom tamit tey mu ñëw ne day joxe de manière symbolique ay ay kits alimentaires et des alimentaires